lu ñu ko takk bokk ci xéwal yooyu weeru màgg wi nga xam ne moo ñu ko baaxee wàcce ci tamit ay xéwal yu baree baree bari mu weer woo xam ne subhaana taala bokk na ci baaxam yi mu ñu defal benn ñu fekkee ko bu ko neexoon duñu ko fekkee ñaar ñu tal ko bu ko neexoon duñu ko tal ñetteel bi ñu nangul ko ci di jéem ndaxte suñ kàttan foofu la yem mooy jéem ci tamit nangu ne lépp lu ñu ci def taxut ñu àgg ci defal yàlla subhanahu wa taala li muy xaar ci ñun wa ma qadarullah xaqa waaye ñu koy sant ci lii nga xam ne moom la yombalal te mu jafe ci ñu baree baree baree baree bari weeru koor boo ko seetloo bés bi yépp lenn kese moo ci nekk loo xam ne bani aadama war na ko kii mooy muñ aj kese muñ añ loolu kese mooy koor ndaxte kiy ndékki yow dangay yow da ngay xëdd da ngay xëdd ndogu yéen ko bokk bon añ kese moo fi des waaye am na ñoo xam ne seen bakkan yi munuñ ko muñ munuñu ko muñ waaye boo demee tey da nga gis ne moom coono bu muy jànkonte moo gën a métti fuuf yow coono bi ngay jànkonte ndaxte yow ko sax yow yëgoo li nga woor waaye moom ma ngay mar di xiif di yëg coono loolu léegi léegi sax yëgoo dara waaye ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo ñu baaxee weeru koor wi nii yàlla ñu yàlla sawarala suñuy cër tàggatal ñu suñu xol ba li nga xam ne mooy li neex borom bi subhanahu wa taala moom dong la ñuy taxawee ci weeru koor wi rawatina li nga xam ne moom mooy alquran lépp lu ñu ci des mu néew li ñu ci def mu néew bu bari yàlla ñu ko yàlla nangul fulal ñu ko dencal ñu ko waaye lépp loo xam ne am na ci ci ay rëq-rëq yoo xam ne di suñ sobara bakkan yàlla nañ ci yàlla boola jëggal ko wa ma dalika alal aziz mbokk yi ñu génnoon ci suuratu zumar ñu gis ne zumar mooy groupe àllaaxira muy ñaar benn group boo xam ne dañu koy màng toroxal ko di dóor di puus di jañax di mbëkk di toroxal di jëmale naari jahanam ak groupe boo xam ne dañ leen di màng jiital leen ak teraanga malaake yi di leen ndokkeel ñu wutali àjjana àllaaxira amul kenn koo xam ne du fa teew amul te boo gisee ngay weddi àllaaxira dañu laa defut loo xam ne daf la naqari tooñ la te amoo kenn ku la fajal lu ma yàlla subhaana taala foo jaar gëm àllaaxira bàyyi naa la yàlla yàlla kañ la ñuy moom mooy àllaaxira ñu ñaan yàlla subhaana taala ñi nga xam ne bàyyi xel nañu gëm àllaaxira te ñu koy liggéeyal yàlla nañu yàlla boole ci ñooñu te incha allah ñu dugg ci aaya yi nga xam ñoo nekk ci suuratu al an'am mu tolloog aaya téeméer bi ak juróom fukkeel bi ak benn aaya téeméer ak juróom fukkeel bi ak benn bu ñu seetee mushaf bi mu ngi ci safa mooy page mia samaani wa arbain samaani wa arbain baada mia ci mushafu li nga xam ne moom la ñuy wax xaadimul xaramayni bu faxd page 148 samaani wa arbain baada al mia subhaana taala di ci wax baada audu billahi min ashaitan rajim qul taalaw atlu ma xarama rabbukum alaykum ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا ما ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون yaakaar naa mooy aaya yu bëgg a jël tey ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu ñu ko mën a leeralee waaye tamit mu may ñu dégg ko may ñu xool bu ko gëm bu suñu cër yi ñu jëfe ko te buñ ko defee na fekk ne subhaana kese moo tax mbokk yi subhaana taala di wax ne xool ndigal la sallallahu alayhi lañ ko waxoon ne waxal gànnaaw sallallahu alayhi ñi nga xam ne ñoo taxawee li sallallahu alayhi taxawee ñoom itam nañ wax ni sallallahu alayhi wa sallam waxee wa qiyaama noppi warul am fekk kuréel bii nga xam ne moom moo dëkkoon a salaasam doon def lu ñu ko waxee xul ñu ngi fi te yaakaar na ba léegi ñu ngi fi tey léegi ñu la bari xul neel gaa yi nga xam ne gëmuñu yàlla subhanahu ñuy jàmm keneen ku dul moom taalaw kaay leen kaay leen at lu ma wax leen jàngal leen duun may jàngal jox leen leçon ma ma jàng seen nopp ngeen dégg wax leen ngeen dégg li nga xam ne ma xarama rabbukum moom la seen borom araamal aleykum ci yéen du si ñoom rek de mais ci ci ñëpp la ko subhaanahu wa taala mais dafa am ñoo xam ne nangu nañu ko bon ñii waxuñ leen ñi ñuy wax mooy ñi nga xam ne ñoom nangoo ba léegi waaye mbokk loolu subhaanahu wa wax qul gis ne bon alquran du waxu sallallahu alayhi wa sallam ndaxte nit du tax du taxaw di wax boppam xul du taxaw di wax boo xam lan xul te fekkoon ni wax ci alquran waxam la jarul mu naan gaa yi xul daf la ne taalaw taalaw atlu te bu la waxee atlu du wax ma xarama rabbukum du wax ma xarama rabbukum seen borom fekkoon ni alquran salaasam moo ko indi bon normalement salaasam du sonn coono gi yem ni gi mu sonn pour ñu jaamu keneen bon kay day jaamu boppam dañu ko wax kaale ay ci la ngeen jaamu ma comme ni ko ñoom Malick Faye di defee ñoom Malick Faye ñoom dañoo sonn pour gars yi lan gëm leen topp leen mu ne atlu ma rabbukum aleykum li nga xam ne moom la seen borom araamal ci yéen te muy lu araam yi gën a rëy mooy allah tushriku bihi shay'a moo jiitu lépp li subhaanahu wa li mu ara araamal yépp lu mu tere yépp yépp yépp bii moo ci gën a rëy bii moo ci gën a rëy ndaxte mooy benn bakkaar boo xam ne bani aadama du ci dee moo xam nit moo xam jinne du bani aadama rek jinne ci lañ bokk dee ci bakkaar bii nii te tuubut ko mu dugg àjjana subhaanahu wa taala mu inna ladina kafaru min wal mushrikina ñoom ñëpp fi naari jahannama xaalidina fiha yàlla yàlla musal subhaana taala mu ne inna allaha laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha subhaana taala mu ne laqad laqad awxaynaa ilayka wa ila alladina min qablika la in ashrakta la yaxbatanna amaluka wa la takuna min alxaasirin mu wax ci yonent yi walaw ashraku la habita anhum ma kaanu yaamaluun mbokk yi bokkaale nekk na loo xam ne subhaana taala du ko jéggal benn mbindeef benn mbindeef xataa malaka fa man yaqul minhum inni ilahum min duni fa dalika najzihi jahannama wa kadalika najzi zalimin ñu xam ne bon bokkaale mooy jël li nga xam ne moom la yàlla jagoo ci jaamu ko ñu sédd ci keneen wala leneen bu ne keneen mooy ku am xel ni nit ak jinne bu ñu la leneen mooy loo xam ne amul xel bant yeeg xeer yeeg xatta rab yi nga xam ne amuñ xel wala jant bi wala weer bi wala géej bi allah tushriku bi shay'an shay'an la wax shay'an du lenn lenn lenn lépp looy jaamu lu du yàlla subhanahu wa ta'ala yàllaa ko bind te amu ci àq nag ndaxte am àq ci jaamu day fekk yaa bind li nga bind nga yor ko yor gu rafet a rafet a rafet a rafet subhaana taala lépp lu koy jaamu moom moo ko bindal boppam amul lenn lu subhaana taala bind bàyyee ko kenn wa maa min dabbatin fi l ardi illa ala llaahi rizquha wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullu fi kitaabin mubin subhaana taala mu ne rabbukum seen borom la fii jëfandikoo baatu ila baatu rabb la parce que rabb mooy ki nga xam ne moo bind ba pare moom moom li mu bind moom ko di ko toppatoo amul lenn loo xam ne ñu ngi koy jàmbat amut wa ataakum bi kulli ma sa'altum wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha amul lenn lu ñu manqué lenn lu ñu soxla subhanahu wa taala jox nañu ko benn allah tushriku bi shay'an bi maana li nga xam ne xeetu jàmm yëpp yëpp yëpp yëpp nañ ko jagleel yàlla kese keneen bu mu ci am soxla keneen bu mu ci am benn dara wa bil waalidayni ihsaanan way jur yi ñoom itam subhanahu wa dafa dënku jaamam yi ñu taxawee leen taxawaayu nja ixsaan wax ne maratibu diin ñetti la bi ci gën a koy mooy lan mooy ixsaan lépp loo defal way jur ci njekk xeeb ko lépp loo ko defal ci njekk xeeb ko waaye lépp loo xam ne ñàkkeeku teggin la bu ci réyal bu ci xeeb benn benn benn benn xatta baatu uf baatu lan uf baat boo xam ne ñaari xaraf ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoo ko togg baat bi sax bu leen ko wax uf buñ seetloo subhaana taala li mu def gannaaw ak xam ak way jur la teg bon amul benn mbindeef ak lu mu rëy rëy maqaama boo xam ne am na ci yow ak boo xam ne ah, wayjur amu ko waaye nag salaasa bokkut salaasa lan bokkut kii pa kaala boo xam ne particulier la parce que kii subhanahu wa la fi taxawal subhanahu wa taala la fi lan la fi taxawal annabi awla bil muminina min anfusihim ku am ci yow soxla salaasam bu amee ci yow soxla soxla kooku da nga koy lan da koy bàyyi donte mu nekk soxla ay wayju bon li nga xam ne mooy wajur def teraanga ci ñoom wareef la boo xam ne subhaana taala moo la ko ga ñàkk koy def bàkkaar bu réeréeréeréy la bàkkaar bu réeréeréy la bokk na ci amin yi nga xam ne salaa def la ko bañ ko laajee mu ne jibril alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne waa joo xam ne dafa fekkee ñaari way juram wala sax benn waajur bi mu sàggan sàggan ba ñoom ñaar ñëpp ñu jóge fi wala kenn ku fi fekk jóge fi te fexe fexe fexe ba am ci moom àjjana kooku yàlla torox ba ne amin mbokk dooy waar la lu dooy dooy waar subhaana taala mu ne wala taqtulu awlaadakum li tam bokk ci lu araamal gannaaw bokkaale ak yàlla subhaana taala waaye jur yi bu leen ñàkk defal mukk njëkk nañ ci taxaw guddi ak bëccëg waaye tamit li nga xam ne mooy doom yi subhaana taala mu ne bu leen leen rey jamono jii dafa fekk lislaam dafa ñëw fekk nit ñi di rey seen doom ñu rey seen lan doom yi fii awlaat la wax ñoom ñaar ñëpp la góor ak jigéen dinañ wax walat góor dinañ wax walat lan jigéen lu tax ñu leen di rey mu ne miin imlaaq ngir ñàkk waa ji li nga xam ne moom mooy wërsëgam ci gis-gisam manut yor doom ji ba lu muy def mooy doom ji moom daf koy éliminer rey ko bu ko defee moom mu des fi balaay doom ji du ko def toog coono joo xam ne du ci génn bu dee jigéen mu rey ko bu dee góor mu rey ko jigéen bi moom kooku gàcce la ci moom ba buñ ko waxee ne sa soxna am na doom ñu ne lu mu am mun a jigéen moom day am problème pour romb ci pénc bi lii du gàttu kenn yow am na doom bu jigéen yow dangay am problème pour génn ñu gis la bon kay yow bul am jabar waa ah, jigéen du jigéen rek doom bu jigéen bi problème la ci yow gàcce la la indil nga am doom bu jigéen gàcce la ba yow bëggoo kenn ki di la gis mu ne yeta yetawaaraa mina qawmi suu'i maa bushira bihi ayumsiku alaa hunin am yaddusu fi turaab waaw te nga bàyyi jabar loolu muy tekki jigéen jigéen la rek kii day doog a judd kii ñëw na bu yàgg rek ku am yaay am soxna ba nga nga fi bàyyi doom bu jigéen bi man ko fi bàyyi parce que yow ni nga bëggee sa yaay ah kii tam bàyyi ko mu nekk yaay jàmbur sa soxna bàyyi kii tam nekk soxna jàmbur waaye subhaanahu wa taala euh, xaw seytaan alayhi laana du bàyyi bani aadama moom fu mu toll di ko gàcceel wàccee nit wàcce nit wàccee nit ba muy jël doomu boppam di ko gas di ko xam nga sax fekkoon daf ko rey pare doo ko suñu la waaye gas pax bu koy xool da koy xool ba pare jël ko dugal ko ci biir suul ko dem kooku gàtt xelam moo koy def du wax ku soxor du wax lan ku soxor parce que am na loo xam ne du liggéey xool liggéey xel la subhaana taala mu ne ba la rey doom yi min imlaakin ngir ñàkk man na am ne dina wax gaa yoo xam ne ñoom day wax ne oh, bon bii nii jamono weesu na ko xam nga am na am na bani adama yoo xam ne ñoom dañ gëm ne alquran jamono da ko da ko dépassé ñu ne aaya bi nag tey lañ ko war a wax tey tey parce que lu ñuy def jamono jii du lenn lu may ne dégg nga maam lu ñuy yor ci wërsëg ak lu mu bari bari bari bari bari bari mën a dund bi ba yow la nga fexe ba benn doom ngay am wala ñaar nga def loolu ñu xam a ñu ko tuddee ci ci tubaab ah i maa nga solu njur gi wala nga lan nga arrêté ko sax benn yoon loolu mu tekki yow moom xel dajut nga am nañu sax ñoo xam ne day rey am na ñaata xale yi yoo xam ne for nañ leen fii ñu ngi leen def ci mbuus sànni xale bi nga jël def ci mbuus sànni wala nga jël xooj ko dugal ko ci biir ci biir fos bi yu ko xamul ñoom ñu ngi rey mais lan mooy lan mooy maanaa yow nga fes yéene yow doo am lu ëpp ñaari doom loolu la ñee ñoom dañu àggoon ci xelum dof ñoom kii bu juddoo man na am na amuñ moyen pour def li ñuy def ñun non bu ñu ko amoon def ko bu ñu amoon euh, jumtukaay yi ñu am tey nga xam ne mën na fexe ba doom di juddu bon ñu def ko du ñu rey doom yi waaye amuñ ko bon na xale bi bu juddoo ñoom ñu rey ko léegi yow alhamdulilah dem nga ba àgg ci mën a fexe ay ay ay jumtukaay yoo xam ne day tox doom ju ñëw mais li tax ñaar yépp am mooy ne yow wërsëg bi nga fasul yéene bokk ak moom loolu dégg la. ñële sax mu ne wax ne comme dafa ñàkkoon mais yow alal lu la manqué dara dara manqué wu la waaye boo seet loo ba seetlu mooy yéefar ilaa yawmil qiyaamati amul xel doom ji nga xam ne yow façon yéene def ko ci kër gi pourtant yaa ngi andi ponkalum xar moo xam ne mu ngi fi li nga koy dundee moo gën a cher fuuf da ngay dundalee xar bi moo gën a cher fuuf mu ne wala taxtu awlaadakum bu leen rey seen doom yi min imlaaqin parce que ñi doon rey seen doom yi lii moo taxoon waaye ñun ñu ngi rey suñu doom yi min imlaq encore beneen mooy ne di gis koo xam ne dafay am doom boo xam ne ñemoo ko déclaré parce que nu mu ñëwee nu mu ñëwee du du jaarul yoon mu rey ko te nga tënkoon lu subhanahu wa wax wax tax rabu zina boo tënkoon ci lii nii bon doom bi doo ko am ba di ko rey doo ko am ba di ko lan du ko rey subhanahu wa taala mu ne nahnu narzuqukum feneen fu njëkk am na benn mu ne nahanu narzuquhum wa iyaakum fii wa nahanu narzuqukum wa iyaahum yéen ñi nga xam ne yéen yeneen way jur yi ñàkk yóbbee leen ngeen di rey seen doom yi subhaana taala mu ne loolu ba ko ndaxte wërsëg wi nga xam ne moom ngay jot mu néew mu bari subhaana taala moo la koy jox yow yëngu mooy li la war yëngu mooy li la war waaye tamit joboot gi nga xam ne ñoom ñooy ñëw yàlla moo leen di jox seen wërsëg ñaata bani aadama ñoo fi juddu fekku fi say waajur yi salaasam mi nga xam ne indi alxuraan kay euh, euh, moom misaal la ci ñoom ñi doon rey seen doom yi ñaata ci ñoom ñoo bàyyi seen doom yi ci kër gi mën na am na am nañ programme bu ñu see rey la ñu dem xeex ñu si wuñu kan ma yore doom yi gannaaw yi ñaata doom yu jigéen la ñu rey mais ñaata rëcc ñaata doom yu góor la ñu rey ñaata rëcc bi maanaam mbir mi ci loxo bi yàlla subhanahu wa la nekk. nahnu narzuqukum wa iyaahu ñu daf ñuy dal gëm ne yow war a dem takk soxna dañ ko ci dugal loo tax parce que mën na ko yor yaa ko yor waa dégg soxna si nga xam ne yow yaa ngi ko bëgg amul benn bani aadama yu dox bu buggu kenn loolu yàlla bindu ko ku xol xol la rek am na koo bëgg kii nga xam ne bëgg nga ko te ñëwagul sa kër alamu du muy xëy yaa koy dundal dundaloo mbir mi dafa nekk loo xam ne subhanahu wa taala da koy jox jaarale sa loxo nga organiser kese la mais du ne yow yaa yor wërsëgam te bu ñëwee loo yokk ci kër gi bu ñëwee loo fi yokk moom boo seetee ndëkkam ba bu bëree ba bari du du matul ëpp deux cent francs wala trois cent francs afa am lenn xam ne yaa ko teg sa bopp bi maanaam dem ba gëm ne yow léegi nag négocier day nekk loo xam ne lii ajjana lay doon il faut mu am nangam il faut mu am nangam il faut loolu du yow yaa sonal sa bopp man na am ne kii bu ñëwee subhaana taala yokk kër gi da ko yokk sax parce que bu xaalis ñëw tamit njaboot ñëw yow amoo milliards yi la jaral sa doom bon am benn doom moo moo gën fuuf li nga xam ne mooy lan mooy ño mooy mooy alal ji mu ne wala taqrabu alfawaxish wala aaya bi ñu ñoo moom jamono ji ñoo moom subhaana taala mu ne wala taqarabu bu leen ko jege bu ko lan jege bu leen jege lan mu ne alfawaxish mooy ñaawteef yi bàkkaar yu salte yi bu ci jiitu mooy njaalo bu ko jiitu bu leen ko jege moo tax subhaana taala mu ne qul lil muminina yaguddu min absaarihim mu ne qul lil muminaati yagdunna min absaarihim parce que commencement baa ngi nii waaye dina ma xam ne mu ne fa nasratun première première étape bi mu ne fa nasratun romb ko ci mbedd mi ngeen jaar ngay ñaan ngeen mu xool nga xool fa nasratun bu ngeen xoolantee yéen ñaar mu ne fabti saamatul nga muuñ mu muuñ message dem na boo muñee mu muuñ loolu mooy lan mooy ne yow xool bi nga ma xool garaawut xool bi ma la xool garaawut nga ubbi beneen buntu mu ne fa salaamun eh, eh, waaw soxna si ne eh, waaye gars yi hmm. commencé di di di tooñante nuyuwante sa nuyoo jamono jooju noonu bu nuyoo nga nuyoo nga fay ko mu fay la bon beneen mun mun ne mun ne jonjoo mun ne fa kalaa mun wax dugg daa fekkoon nazara amu amu toon bon du am souvent daal wax mooy bu ngeen bu ngeen gisee soxna yi wala nga gis góor ñi wàccele seen lan c'est bon yi loolu bu amoon bon ibtisaama du am muuñ yonent bu garaw la ibtisaama yonent bu garaaw la boo ko xoolee nga muñ rek mu xool la mu muñ asalaamaaleykum daa dugg fa salaamun mu ne fa kalaamun ah gars yi commencé waxtaan ci biir kalaam ci biir kalaam bi mu ne fa mawidun rendez-vous yu am rendez-vous yi lan am rendez-vous fa liqaawul foo la waa ji yem rendez-vous joxe leen rendez-vous fa liqaawul ñu daal di leen ñu daal di tase man damay déglu ci kaar yi léegi si nga gis nit koo xam ne ku doy waar yow xale boo xam ne kii musoo ko gis kii musul la gis fraction de seconde rek ngeen commencé joxante ay numéro téléphone do pour la kii lu tax nga koy jox seen numéro téléphone yow lu tax nga koy laaj numéro téléphone am lu ngeen bokk lu ngeen xamante la ma dox seen diggante dara ñu ngi doog a daje nii ñu ale ma fii jamono ji nu mu daawee soo daal mën a waa taqrabu bu leen ko jege wala taqrabu alfawaxisha bu leen jege mbir mi bi maanaam góor ñi ak jigéen ñi lu ñu mën a sore moo gën lu ñu mën a sore moo gën léegi nag jamono jii moom loolu boo ko waxee ñu ne yow da ngaa tardé da ngaa lan da ngaa tardé bi maanaam jamono jii yow il faut nga am coof kii tamit il faut mu am lan seen affaire seen tur yooyu noonu waaye baatu coof man war nañ ko seetaan de ku am coof loo koy def coof boo koy am ci ci ci ceeb bi rek nga ko jëmale bi maanaam yow kii consommation rek la am nga ko war a lan consommer waaw lu mu liggéey nga lekk ko moom gannaaw moom taxawal mu mel ni Jibi Juuf wala taqtulu aw la mu ne wala taqrabu fawaahisha moo xam maa zahara li ci feeñ min ha ci fawaahish yooyu wa ma batana ak lu ci nëbb ñu ne jamono ci jaahiliya ñoom avant l'islam bi ñëw dañu gisoon njaaloo bi ci garaaw mooy bi feeñ njaaloo feeñal ko mooy lan mooy li garaaw mais bu ñu ko nëbbee amul problème ñu amul xel kii amul lan xel mais ñun dem nañ ba léegi njaaloo dañ koy feeñal garaawul sax am na fi place yoo xam ne boo fa jaaree da ngay doy da ngay waar subhanahu la sax ñoom faalawuñ la subhaana rabbil faahisha innaka faahishatan sa saa sabilan mooy yoon wi génne ñaaw bi gën salte buy bani aadama di fajee soxla waaye tamit mooy yoon bi gën ñaaw bi gën a salte bi doom di juddu xool leen rek waa ji mën na am ba muy nekk xale moom seetlu lan la war a def déglu ay jàjji seetul dara seetul yàlla rusul ko mu fexe ba jaar ci loolu am ca loola mu dem nag ba mag ba xel mi ñëw mu dem ba mage ba nga xam ne dëgg-dëgg toll na foo xam ne nag saa yi euh, ay sët ñoo fi toll muy xool kooku mu koy xool fii waa ji doo xam ba lan lay dund moom bu doon sagoon kii du feeñ ci bëtam bi mais mu ngi nii beneen problème taxaw mooy bés ñëw mu génn àdduna kooku taxaw ñu la ko doo doon lu tax da ko lànk fi ñoo xam ne dañuy di ñëw di ko mu muy loo xam ne lu doy waar loo xam ne demoon nañ ba fàtte ko tey il faut mu sulleeku tey danañ ko wax wax bés boo xam ne kenn bugg ko dégg parce que xattaa ñuy donn ñu dégg ne seen papa def na lii wala seen yaay def na lii bugguñ ko ñu ne sa mbokk du donn lu tax du donn est-ce que dafa rey baam ñu rey baam lu tax du donn kenn du ko wax ñëpp dinañ ko xam dëkkandoor yëpp ñu ko xamoon ñu ko xamutoo ñu jóge ñëw ci quartier yëpp dañuy xam ne woo nekk te góor gi defal fi nangam man na am ne sa jàkka ja të tër nañ ko sa jàkka ja wax ci moom lu rafet a rafet tey nag ci kër gi am na loo xam ne mu ngi ko fi bàyyi kenn ñu mu ko wax boo wax gars yi wax ne ba bànneex boo xam ne wàccul lal jaru gàcce du ak àllaaxira da ko jaru bànneex bi ci lal bi rek la yem boo wàccee lal bi dootoo ko bu na lekk sax nga tàqa bi dem di tàqu ma ko ba léegi muy mu yàgg di sax sa làmmiñ waaye bu la lal bi jeex na loolu dafa jaru gàcce sa giiru dund sa giiru lan dund gis nga muñ fekk amut ba ni aadama bi seytaan bi daf koy toroxal il faut ñu muñ bés bakkan bi mu taxaw ci lu neex yàlla subhanahu wa di ko def ñu bës bakkan bi li nga xam ne moom la yàlla bañ tere ko ñu ba ko wa illaa gàcce rek waxtu woo bàyyee ni subhanahu wa taala digle seytaan la gàcceel la waxtu woo taxawee ci lu yàlla bañ seytaan la gàcceel la mu ne njaaloo duut bu feeñ bi ak bu ci nëbbu bi benn ci baaxut benn ci baaxut benn subhanahu lépp lu mu la aaye sa njëriñ la tey amul benn garab bu gaa yi di jaay ci mbedd yi moo nga xam ne garabu tradition yi lañ ko tuddee lu may dee wax ne garab gii nii euh, day day faj day day day yokk góor doole ma ma man a xasa ku jóg jaay garab gii nii garab yooyu buñ ko jaayoon ay multi multi ko million de million de millions tamit du sax euh, feebar bi tas lu tax feebar bi du faju parce que yow li nga xam ne moom moo nëbboon ci yow démb mu nëbbu ba yow boo ko gisee si yaram yi yëngu mu ngi nii léegi mu ngi nii xam nga boo gisee yàpp di neex ah da ngaa toog ba tabaski ba tabaski nga bos yàpp waaye ah, bés bu sax nga nga lekk yàpp bés bu sax nga nga xeeñtu yàpp yàpp dootul woo da nga ko nu ñu ko waxeeti encore nga ko lan amaa gën di la xam nga nu ñu ko waxee boo ko léegi sax boo xeeñtu sax nga bëgg a wëccu ndax su sëy waa ji moom jigéen ñi guddeeg bëccëg xataa léegi ci kaari sax da ngeen di jonjo ba mel ni da nga maam ñaari bant yu jonjo doo yëpp dara koo ku la joxoon juróom-ñaar fukki biya fara la tudd xam du am ba njëg du am njëg lu tax parce que sa yaram moo dundatut yaram moo dund moom yaramam dund yoo sa yaram dundut gars yi ñu ci liggéey xaalis loolu yëpp pexe seetaan la yàlla yàlla musal subhana taala mu ne wala taqtulu nafsa bu leen rey lan bakkan rawatina bakkani jullit subhaana taala mu ne wa man yaqtul mu'mina mutaammidan fa jazaauhu jahannam mutaammidan moo ko tey subhaana taala mu ne pare pare dinaa la da nga dugg jaxanam xaalin fi xadiba la ali ñaar la an wa addu la azaban azima tëkk yoo xam ne kenn xamul lu mu lu merum yàlla subhaana taala yàlla ñu ko musal moo gën a métti jaxanam moo gën a métti jaxanam wala taqtulu bu la rey bakkan allati harrama bi nga xam ne subhana dafa araamal ñu rey ko kooku bakkan jullit la dafa xaraam ñu rey ko illa bil xaqi lu mooy ci dëgg bakkani jullit bii nii dina toll foo xam ne lislaam dina wax ñu faat ko mooy li salaa sam wax deret su jullit kenn du ko tuur su ma ci ñetti sabab yi ak sëy bu zani koo xam ne moom moo xam góor la moo xam jigéen la sëy na ba pare mu njaaloo yooyu dañu ko lan dañu ko faat waaye mbokk yi tamit fii doo tëb rek nga faat ko ndaxte njaaloo subhaana taala daf ci teg ay conditions yoo xam ne pour nga dóor ci nit wala nga nga rey ko ci dafay daal di jaxe il faut nga am ñeenti seede yu maandu yoo xam ne ñoom ñoom ñoo ànd lan ñu gis ko néew na mën na am ne sax koo xam ne mu nekk ci sëy waaye koo xam ne borom koo xam ne borom jëkkër la ba pare muy dafa na de dafa na lool waxuma la nag ñeenti du ko lan du ko gis waaye loolu yëpp mbokk yi duñu ko seet waaye dañuy seet ne lii subhaana taala aaye na ko ñu bàyyi ko subhaana taala ko leen ko ñu bàyyi ko duñu seet ne ku ku ku njaaloo léegi nga maam bu la boo amoon ñeenti seede lislaam du la def de waaye bu la lis bu la ñeenti ñoo bu la gis ndax yàlla subhaana taala dafa la gisul foo mën a nekk yàlla nga lay gis foo nekk yàlla nga lay gis te jullit bi war na rus nag mu taxaw ci foo xam ne subhaana taala bëgg ko fay gis rawatina ci place bu ñaaw bii rawatina ci place bu lan bu ñaaw bii nii ñaareel bi mooy bakkan boo xam ne dafa rey bakkan kooku moo rey bakkan bi moo tey rey ko waaye tamit moo ko tooñ parce que nit mën na tey rey waaye tooñut man mii nga dab ma ci mbedd mi nga bëgg may rey ma xam ne kii ci rey ma la jëm bu ma ko seetaane mu rey ma ma lu may def maa ngi yooyu ñu songoo boo rëcc di nga ma rey bon dinaa la lan dinaa la faat bon lii tey la waaye dama ko rey te fekk damay défendre sama lan sama bopp kii nag moom agresseur la moo tey fekk waa ji ëpp ko doole wala jekk ko ak ànd ak yéene rey ko yaa ko tooñ ñu ne waaw ba nga koy rey yaa ko tey ànd ak sa xel ñu ne ñu nag lu ñuy def ba pare l'islam gis kii lépp lépp moo ko def amul benn benn lay bu mu indi pour génn ci situation bi léegi ñu lay sax balaa mu koy rey dinañ laaj ay mbokkam bu mbàkk mbokk yi ne nañ ko rey wéela atte ñu rey ko fekk ni jéggal nañ ko ñu ne fa diyetul kenn dootu ko lan dootu ko rey bon l'islam du ku jóg rek da nga maam jël ay ponkalu xeer sànni ci moom ne l'islam langam langam yaa xayti seetaan te bu obital yi l'islam dafay yar nit ki ba moom du rëy mbóot wax moom muy rey bani aadama rey ci boppam deret ci boppam lay jullit bi di daw l'islam la mu la muy fexe mooy nga nekk jullit boo xam ne man salimal muslimuna min lisaanihi wa yadihi sa làmmiñ bi doo ci lor kenn waaye tamit sa loxo bi doo ci lor kenn waaye l'islam dana yéen bi ak yow fan foo xam ne dangay ngay jéggale boo mënee fayu boo demee ba jekku ñu tooñ la ñëpp xam ne ñu tooñ la nga jekku mën a war a mën a fayu subhaana taala mu ne ah wala in sabartum lahuwa xayrun li sabirin boo ko jéggalee nga muñ dee moo gën maanaam nit ki l'islam daf koy yara yara yara yara yara ba l'islam pour mu rey ko day jafe ndaxte moom àllaaxira mooy nekk policier alquran la ci suratul muzammil fa kayfa tattaquuna in kafartum yawman yaj'alu wildaana shiba bu ngeen demee ba yéen àllaaxira bés boo nga xam ne bu ñëwee bébé yi nga xam ne amaguñ 24 heures dañuy béjjaaw ragalatuñ ko mu ne nu ngeen ragale yàlla subhaanahu wa taala bon nag waa ji bu demee ba moom àllaaxira moom la teg ci bëtam bi fii lépp lu muy def mu ngi calculer àllaaxira subhaanahu wa taala comme lu wax wal tanzur nafsun maa qaddamat li ghadin wattaqullaaha inna llaaha xabiirun bimaa ta'maluun kii du def la nga xam ne lislaam daf koy bañ ak day am loolu mënu ñàkk am ñetteel bi ki lislaam rey mooy koo xam ne dafa xëy rek féeteer lu mu ne ma bàyyi naa lislaam gën naa ci gën na lislaam musta ñu may ko occasion ñu may ko ñetti fan mu lànk ne du tuub ba occasion boobu jeex léegi ñu faat ko ñett yii nii la lislaam wax moo tax alquran mu ne allati harrama allahu illa bil haqqi bon yow jullit bi na nga bàyyi xel ci li salaa sam wax lu ñaw rek loo xam ne mun na gaañ nit moo xam dëgg la moo xam xatta big nga joxoñ ko benn jullit sallallahu alayhi wa sallam mu dafa aay loolu lu tax parce que mën na commencé ok man sax day day day fo day kaf seytaan mottali ko seytaan ko mot am na fi ci marché eglise bii nii li nekk ci marché bii euh, gars yi ñoom ay ñoo dend ay taabal kii mën na am da doon wut wecc mu dem ci ki mu dend boucher la mun ne ko waaye saa yu wecc ma waaye mu ne ko waaye toppale fi waay bu ñu nekkee def buuti faaka bi da ko butti na ko dafa rek nu toppal fii rek ndek butti na ko bon yow julli bi dangay ngay moytu jël lu ñaw nga jëmale ko ca mbokkum jullit lu ñaw laa la wax waxuma la paaka jaas lépp loo xam ne bu ko laala gaañ ko moytu ko bon kii du rey ñu xam ne rey bakkan bu yàlla araamal rey ko lu xaraam la bakkan boo ko boo noo koy layee noo koy layee benn bakkan boobu di nga ko yaa ngi moom nga dédommagé nga tibbal ko seyti abo fay ko képp koo xam ne am na intérêt ci waaye jooju nga dédommagé ko est-ce que mën doo dédommagé 14 millions sénégalais yëpp am na ban sénégalais boo xam ne sénégalais amu ci moom intérêt am na bani aadama boo xam ne adduna si yëpp moo am ci moom njëriñ ñëpp ko jëriñ nga faat ko seeta loolu rek borom xam-xam boo xam ne fépp lay jëriñ ci adduna si nga faat kooku noonu ñaata nga war a fay moo tax sax mu ne kii muflis am ay muflis wax xam ne àllaaxira bu ñëwee lépp lu mu amoon ci tiyaaba da koy fay jeexal tag ba pare dese ñu mu tooñ façon yii la ba nit ki na nga téye sa loxo nga daptu sa bopp yar sa bakkan bi sa nga bës sa xol bi ba lépp loo xam ne dafa jëm ci génnee deret nga moytu ko daaliku mu ne lii de lii nga xam ne moom la subhaana taala araamal ci yéen wassaakum bihi wassa mooy li mu leen dénk ngeen waar ci taxaw seen giirub dudd seet giirug dund lii da ci war a taxaw laallakum taaqiluuna di ngeen am lan ngeen am xel lii nga xam ne subhaana taala moom la araamal ci bani aadama yi boo ko seetloo ba seetlu ko ba seetlu ko ki koy def amul xel ne njëkkee ci bu njëkk bi mooy shirk naka lay nit di amee xel dem di jaamu ngir yàlla bant bant bu wow kong kong kong kong nga koy am na ko xam ne sax moom du wut noo ko fi fekk waaye moom moo ko defar stat bi nga xam ne moo ñu tiim fii ci ci su ci ci waxaam euh, nga defar lu mel noonu ba pare nga nga tuural ko deret nga nga nga yaama moom te yaa ko defar ñëw fekk bant bu waw koŋ nga kokk kokkal ko kokk kokkal ko kokk kokkal ko ba yaa ci yaa xam nga ne defal nga koy bët yooyu ay bët yow dafa ko ay pax rek nga si def bët boo xam ne ilaa yawmi xiyaamatu du gis ne ngay def nga ci ab ab paxu bakkan ilaa yow qiyaama du nokki wax ba nga ci dafay paqi baqante boo nga ci war a ne def na nga maam baqam bi lu ci nekk yëpp ci ay kawara yu bala mantuwa ah, nga defal ko pour fi nga xam ne foofu nga léegi nag bu nooyee xanaa nag ngelaw loolu war na ko jëriñu ana yaramam wi bi nga jël ko nga teg ko ci place boo xam ne moom du fi toxu mukk yow nga ba ko fi sa sët ñëw fekk ko fi ba ko fi sa sëtaat ñëw fekk ilaa yawmil qiyaamati moom mu ngi ni yëngu-yëngaale benn tabax rek benn place mënul wax mënul gis mënul dégg doo boo ko ñoppatee yëgut boo waxee moom du la wuyu boo ko ñaamee du la jox boo ko musula du la musal moom tus la manut boo ko xaree sa yóbbu ko def ko matt taal ko mën nga ko xammee da nga ma togg sa ci moom mënu dara nga ne kii mooy sa yàlla bi maanaam lii borom xelu nit waru gàtt xel ba agsi fi waru ko te am na yenn yoo xam ne nit ki dina ko def ak mbaadoo la ko xam ne gàtt xel moo ko yo am na mbaadoo la ko xam ne gàtt xel la subhaana wa taala lu mu la sotti ci ay xéwal fa sol teraanga gu mu jox la ko amoon lay jaay lu jaar lu mooy lu mooy loolu yi la kii baadoo la pire la nag baadoo la pire pire pire pire lii baadoo la goo xam ne gàtt xel moo ko yóbbu nit naka lay nit di jaamoo kaña naka lay nit di jaamoo gëlëm naka lay nit di jaamoo éléphant xamul tey change man ba ma gisee indo yi ñuy jaamu ay ay ay golo di jaamu gëléem di jaamu dëgg maam ñay surtout ñay boo xam ne at bu jot ñu changé ko bu ñay bi gën a rafet te yow li ko rafet loo yaa ko yow defal or yi yaa ko defal mbubb ne ne seen lañ gël ñay nu mu réyee xool leen ngeen si nu mu tuutee genn genn moom genn gi sàngul awram daqalu ko weñ subhaana taala dong moo tax lu tax mu bind ngeen si nii kii loo ko loo ko loo ko loo ko jaamoo bi maanaam bani aadama xelam war na weesu jaamu lu yàlla subhanahu wa taala waaye tamit ngoram waru ko may teraanga gu yem ni ko subhanahu wa teral mu bàyyi ko fi dem di jaamu noonam bon subhanahu wa taala il kii wax yow dafa jot pour nga am xel il faut ñu aramal lii ci yow boo ci taxawee nag nga am xel bi maanaam lii nii ñi ci taxawul boo leen seetlu amul xel amul xel nooy amee sa doom nga rey ko bon lu la wutee jabar la wutee jabar yow li nga def sa doom sa papa bu la ko defoon kay mbir mi du yegg si fii ni bon yow fayoo naar bi xorom si subhaana taala mu ne wala taqrabu bu leen jege bu leen ko jege de bu leen jege wax ma sax ba ngeen di dem wala taqrabu bu leen jege maalal yatiimi alalu jirim jirim koo xam ne papam dafa gaañu te moom majeur agut bàyyi ji am lu ko fi loolu mu nekk sa loxo subhaana taala mu ne bu ko jëfandikoo wala taqrabu maa la yati bu ko laal bu ko jege aaya bu yemoon fii ah dina métti lool waaye subhaana taala mu ne illaa lu dut billati hiya ahsan lu mooy ci anam bi gën a rafet mooy lan mooy alal ji nga fas yéene nga jëfandikoo ko di ko liggéeyee di ko yaxanal boo xale bi bu màggee fekk fi lu ëpp lu mu fekkoon ba fekk fi lu ëpp lan lu mu fekkoon bu ñu demee ci sotti nisaa subhaana taala dina wax foofu koo xam ne nag moom ndeysaan euh, euh, dafa mel ni Malick fay day toog ñaari fa ñetti fan du am dépense kooku fa yàqul bil ma'ruf na si coppati mos na ci coppati mos na mu saf mu saf wala mu saf suukar mu continuer na moytu na moytu parce que alxuraan dafa xam ne alladina yàquluuna am wala yatamasuuna inama yàquluuna fi butunihim naara wa sa yaslawna saira yàlla yàlla musa alal ji boo ko fi bàyyee du xale bi bu màggee mën na am azaka bi jeexal ko xale ak alal ji euh, na nga ko yaxanal di ci liggéey di ko liggéeyal di ko liggéeyal d'une façon boo xam ne xale bi bu màggee dina fi fekk alal ji mu jural ko leneen yow nga seet si nag yàlla su wa taala bu fay la salaasa am na wax lu wax ci yatiim boo ko seetloo nga liggéey xale mooy lan mooy ne salaasam nee moo ku yor yatiim kaafilu yatiim nii ca àjjana mu lëkkale ñaari baaraam yi yatiim lépp loo ko mën a defal ci njëkk moo gën moo gën alalam lépp loo ci mën a def ba bu màggee fekk ko foofu subhaanahu wa taala daf la ciy fay loolu na ngeen taxaw ci alal ja na ngeen ca taxaw nu mu gën a rafete illa bi liti yi ahsan ba kañ yàlla subhana taala mu ne xatta yabluga ashuddahu comme ni ko waxee fële tamit fa in anastu minhum rustan fatfaw ilayhim amwalahum xale bi teg ko bët du ko surveiller bàyyi ko xel bàyyi ko xel ba mu war leen ne kii mat na waxambaane ma na sox denc soxna nga jox ko alalam te wuutal ko ay san seede wala taakula israfan wa bidaaran an yakbaru subhaana wa taala nattoo fi benn waay mu bàyyi fi ak njaboot gu tuuti sama waay balaa ñu ko yóbbu ca bàmmeel ba yow man gis naa fi waajoo xam ne waa yi fi mu dee dafa toog nii wàcc ci liggéey fi mu toog nii ci buntu buntu néegam foofu la ko crise bi daane balaa ñu naan jël yóbbu leen hôpital am na ku dugg ci biir néeg bi wax mbubbam bi mu summi woon am na xaalis ba mu fa defoon yóbbu na ko ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak lan ak baay ki ko def loolu ñoo bokk ndey ak baay miraas bu méttee méttee miraas foofu noonu parce que miraas boobu musuma ko gis ci kaw suuf alalam ji même fas yi ak yooyu dañ leen saam saam fas yi fas yu bëri la may bàyyi ñu saam leen nag yi ñu saam leen man leen façon miracle moom fu ñu ko gisee xale yi waxtu taawam bi amul sax euh, ñaar fukk jigéen la mu góor ñi xale yi ndaw lañ fekkuñ fa dara te waaye yàlla defoon na amoon na alal noonu lañ ko ne fuuf mu jeex subhaana taala mu ne wala yaxsa alladina taraku min xalfi zurriyatan di afan xaafu alayhim wala yattaqullah wala yaqul qawlan yow toujours xoolal sa bopp li dal waa ji mun na la dal ana kam moo mën a assurer boppam ne moo ay doomam dinañ ànd di ànd di ànd ba doom yi màgg kenn yow kii nu mu faatoo nii léegi léegi léegi léegi nga suul ko man na balay at wallahi ñu ko doll rakk kooku laa la ki rakkam bu góor bu góor bi teguñ ci ñaari at moom itam gën a àdduna teguñ ci ñaari at moom itam lan mu gën a àdduna bi maa ñu doon sàllañu alal bi yépp actuellement yaakaar na kenn mu ci des miraas bu doy waar la ñu miraasoo ñoom ñoom ne ñoo bokk ndey ak baay mujj ñu ñu ñu xuloo ñu xeexoo ñaawoo ñaawoo nga xam ne de lu pour lan alal parce que moo moo ko dama daal mu ne bon alal ji nii nañu ko rafetal bu ñu ko fi bàyyee xale bi nang ci taxaw di ko toppatoo di ko toppatoo di ko yaxanalal ba bu xale bi màggee fekk fi loo xam ne moom itam mun na ci taxaw moo gën mu ñëw fekk nekk xale boo xam ne amul fu mu tànka bi mu na nekk saa saa mu nekk agresseur yoo lay nekk agressé parce que lu tax fekkut fi kenn ku ko amal yërmande xol bi ñu saaf ko togg ko ba mu wow koŋ bu màggee du amal société benn yërmande ci yoo lay commencé papa bàyyi la ko alal te yooyu yaa lekk balaa muy dem dal ci kenn ci yoo lay lan ci yoo lay subhaana taala mu ne wa kay kayla bi tamit ñun la wol misaan bu ñu waxee kayil mooy nattukaay yi nga xam ne dañuy jëfandikoo pot mën naa am jëfandikoo dàmba sax parce que mango yi ak màdd yi ak ditax yi ak yooyu ñu koy jëfandikoo wal misaan ak balance yii nañ koy matal wax bi ma nekk ci luuma bi am na sama gars yoo xam ne seen balance yaa rek xam balance bi ñoom dañu yor kii bi nu mu soti pot bi nu mu soti bi dafa am boo xam ne moom fii lañ ko liggéeyee fii Sénégal masalan boo amee bu bu un kilo bu vrai bu baax bi bii la da koy lan da koy manqué ay dix grammes ak xoolal yu tuuti yu ñàkk fay yooyu lay manqué léegi moom bu lay jaay moom boobu lay utiliser bu lay jaay yooyu lay lan lay utiliser buy jënd ci yow moom xam na bi bi bi li manqué ci li xam na ko nu mu toll dafay wut lu mel ni mbuus mu def ci suuf mu def lu wax taara bi maanaam dina fexe fexe fexe ba mu mat kilo bu ci boole mbuus bii waaye mbuus boobu fii la koy teg moom buy jënd ci keneen comme la alquran wax. buy jaay bopp buy jënd moom pour boppam buy peese daf koy teg loolu nga xam ne matut mu jël leen te teg ko muy taalam ba ba ba saw puun mu jë mu peesal boppam lu mat boo bu lay jaay du def loolu wala sax beneen pexe lay def moom bu lay jaay lu mu lay jaay au lieu que mu teg parce que nga xool mu balancé déedéet da ko naan tal ci balam yëkkati bu koy dóor ci balance bi ak bu koy yëkkati di benn parce que waa ji moom itam boo koy jàmm ne na daal maam boo ñëwee ngeen ne daanu ma ne la soxna si bu daanu ma daanu balance bi daal bu daanoo léegi ma jóge ci luuma bi xam nga nu ma mën nañ tolloo balance la wax mu ne man wala loolu déggoo tubaab waaye na daanu bu daanu ma daanu kële moom du dem du àgg yow bu daanu ma daanu boo daa boo ñëwee ngeen ne ko jaay ma buy teg affaire bi du ko da koy moom da koy dóoraale bu da ko tër rek yëkkati la moom daalu nga yow itam daalu nga ci bëgg daal nu mu jox la nga na fii benn waay boo xam ne parce que dafa ma jaay yàpp sama sama client la benn bés mu jaaxal ma ne ma jaar ci bitu pël fële ma ne ko pël ma jaa seetal ma lii parce que bés boobu dafa mel ni dafa xaw a woyofe moom mu peese ma ma gis ne manqué ne 10 grammes 10 grammes xam nga 10 grammes ba bariwul mais yow da ngay seet 10 grammes bii nii ñaata at soble si def ci mu ngi ci gañee pompiteer bi yàpp mu ngi jaay ma yàpp lay jaay lépp lu muy jaay bi maanaam kilo bu ne am na ci 10 grammes xoolal waa ji man ba ma ko xamee ba léegi ma nga fa falaa ko fekk ba léegi ma fa ñaata lay sàcc actuellement ñaata bi maanaam waa ji boo demee am na sax lu ëpp capital bu mu ubbee bitig bi te liggéeyut ko subhaana taala mu ne jaaykati mango yi nag ñuy jaar pour xam nañ ko boo demee mu ne la bool mango boolu mango yàlla xam ne na boot bi te nag bu la ko ma boo ba dafa la ko ci mbuus nga mu dem wut mbuus sotti la nga indi jox la bool ba ay kayit la ci dugal ak kër yi si lan ñu dugal nekk élève bu ñu dem bu récréation yi bu jotee bu ñu dem ci mbir ñu jaay caaf nekkete moom pot bu muy jaayee caaf daf ko dóor ci suuf mu nuuroo ko nottal ko subhaana taala mën a déedéet bon yow li ngay def ma mun a wa aw fuu matal boo ne waa ji pot la potu mango la ne fekk potu mango la boolu mango la ne fekk bu ci dugal kayit bu ko dóor mu nuur ci wa awful la natt leen ko mu mat fekk da ngay natt sa bopp kenn waxul la na nga loru waaye booy nettal jaambur bi bu ko lor de ñu nga àllaaxira boo àggee foofu fekk yow nga loru kenn du la ci mi kenn du la ci lan xisaab yow parce que loolu nga ci natt gi déedéet yàlla subhaanahu wa taala loolu xisaab loolu sa àq la bu la neex nga bàyyi ko waaye àq jaam boo xam ne yaa ko lor balaa ngay dem di nga ko delloo balaa ngay dem di nga ko lan di nga ko delloo salaa sax wax na ko ci hadis àllaaxira balaa kenn du bouger place tànk bi balaa nga koy seqi mu fekk monom ki danañ la laaj ñeenti ñii bokk na sa alal ji yow foo ko jële ah maa jaar fii jaar fii jaar fii jaar fii jaar fii jaar fii jaar fii ba dajale ko mu mu foo ko dugal nag lépp loo xam ne yaa ngi koy def sa sa alal ji fexeel ba fekkee ni da nga koy peese wala da nga koy natt na fekk mu jaar yoon moo gën nga àgg àllaaxira nga delloo loo xam ne dëgg-dëgg bés boobu doo bëgg a delloo bés boobu la bëgg lan la bëgg a lelloo ne imagine muflis encore waa ji nga xam ne depuis ñaata at lu mu pesé sàcc na ci ñaata bani aadama lay delloo àllaaxira ñaata man de baal tax parce que nag yow nit ki nga dem àllaaxira nga gis sa moromu nit ñu koy njoñ da duggal safara fekk nga am ci nga am ci paar ah ni ku ne war na war na bañ loolu fii su àdduna nit ñu ko seetaan fii nit ki ak loo ko bañ bañ du ngeen jago jote jote jote am na fenn foo xam dana fa dana fa toll ci métti da nga ko amal yërmande waaye yow nooy seetaane àllaaxira nit di dugg safara mu wóor ne yow sa àq yu mu la delloo bokk na ci li koy dugal safara baalu la ko àdduna ak àllaaxira ah baaloo ko àdduna ak àllaaxira suma ma ne ko àdduna ak àllaaxira li nga tooñ yàlla subhaanahu wa lii kii lu mu la tooñ du ci dara dara dara dara yàlla taxaw la ko taxawaaj moo tax subhaanahu wa taala waxoon aboubacar radiallahu anhu mu ne walaa yaatul ulul fadli minkum wa saat an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfa alaa tuhibbuuna yaxfira allahu lakum eh? yow kii dalaa tooñ nga ko duma la baal àdduna ak àllaaxira yow ñaata yoon ngay tooñ yàlla par semaine ñaata yoon ngay tooñ yàlla par par par jour ñaata yoon ko xataa sa si benn seconde ñaata yoon nga ko ci tooñ ñaata yoon ñaata yoon nga ko ci tooñ te amul benn tooñ boo xam ne subhaana bu la ci jàppee bu gën a tuuti nga alko tooñ yi ngay tooñ yàlla subhaana taala ci gën a tuuti bu la ko yàlla jàppee rek musiba am man nag mbokk mi ñi lay tooñ ñooñu dañu lay indil tiyaaba jéggal leen li ñu lay fay àllaaxira li lay yàlla di fay moo ko gën a rëy fuuf baal ko ci xol bu sedd guy nga xam ne subhaanahu wa taala tamit tooñ nga ko moom itam mu jéggal la subhaanahu wa mu ne wa awful kayla na mat wal miizaana balance bi tamit na mat da baax bil qisti ci maandu ci maandu bu loru bu lore bi maanaam booy peese bu la wax ne na daanu bu daanoo nga yàqule da nga gis léegi-léeg lu la jaay naa saako ceeb bi damaa perte waaw parce que saako ceeb bi def ne cinquante kilo kilogramme moo ci lan moo ciy nekk yow boo koy peser di daan di boo boo boo ko jaayee ñaari kilo balance da ngay da ngay sotti ba balance bi daanu fekk yaa ngi yor poids bu normal masalan yoo jàppal ne chaque fois mu daanu ñàkk nga ñaari gramme ñaari gramme bu yàgg saako bi ñaata lay daa lay def ñaari gramme fois cinquante ñaata ñaata lay doon amuloo cent cent gramme saako bi day manqué. fekkee ne ëpp na 100 grammes la maanaam yow da ngay gis waa joo xam man ceeb bi dama koy jaay am na sa bénéfice mais dama pour dama koy téye client yi rek wax na dëgg am na ko xam ne dafay jaarale yoon mais moom itam da ciy daal bon yow bu bil xisti ki ngay jaay bu mu la lor waaye itam bu ko mu ne laa nukallifu nafsan du ñu ga benn bakkan illa wusaha lu mooy lam man bon bi maanaam lii ñu subhana wa taala ba mu commencé wax ba léegi man nañ ko yàlla bu waxee bu leen bokkaale yàlla parce que man nañ ñàkk bokkaale yàlla subhana wa yàlla bu ne bu leen lekk alalu jur mi parce que mën nañ ko ñàkk lekk yàlla buy waxee ne bu leen jego njaaloo parce que mën nañ ko ñàkk bi maanaam amul lenn lu ñu subhana wa taala aaye te mënuñ ko mënuñ ko bàyyi amut mu amut lépp lu ñu man nañu koy bàyyi parce que subhaana taala bu ñu ko aayee bàyyiwuñu ko da nga maam jaam ni ñun dinañu ko aaye ñu ba ko ñu bàyyi ko nit dina fi nag nit tël mu bëgg a yuux ba nga yuuxu rek hmm, dina ko bés ba du yuuxu lu tax dafay ragal bu bu yuuxa ñu tegaat ko beneen waaw ana kan la fi subhaana taala yow nga rey sa doom amut Ibrahima kese lañ ko waxoon ci histoire nit Ibrahima lañ fi gis koo xam ne subhaana taala wax na ko mu rey doomam tere ba sottiwut mu ne fa dee na bi di fiin moo tax mu ne inna hada law balaawul mu win waaye yow dañ la bu rey sa doom subhaana taala mu ne bul rey sa doom man nañ ko wala mënuñ ko man nañ ko ñàkk rey bon lépp lu ñu fi subhaana wax tamit booy jaay njaay mi jaay jaar yoon man nga ko wa ida qultum lu ngeen mën a wax lu ngeen mën a wax bu ngeen waxee fa adilu na ngeen maandu ca wax ja walaw kaana da qurba donte ne aji jege ñaale ngeen sëq mi bi maanaam seede lay doon am na koo xam ne boo waxee dëgg mu loru kii sama nijaay la sama goro la sama nangam la subhaana taala mun a déedéet yow li ngay wax seet ci yàlla kese seet ci yàlla lan kese walaw kaana daa qurba doonte ne baay la doonte ne yaay la doonte ne nijaay la lu ak lu ci mën a am parce que subhanahu wa moom mooy gën moom nga war a teg ci ko gën war a teg ci ko ci keneen lépp lu fi am sabab la boo xam ne subhanahu wa moo ko lan moo ko def waxtu woo nëbbee dëgg tooñ am te tooñ subhanahu wa dafa araamal tooñ ci boppam mu def ko muy lu araam suñu diggante ba bu ñu tooñante salaasa mu ne tooñ zulumaatun yawmal qiyaamati te nag sa mbokk salaasam nee na bu tooñee dimbale ko mu ne noo koy dimbale nga tëye ci loxoom ne ko bàyyi tooñ ku baax du lan du tooñ te nag góor war na jax war na rus bu jotee ñu ñëw ñu ne ko yaa tooñ loolu gàcce gu rëy la ba ba tooñ bon yow doo gis sa mbokk boo xam ne li mu nekk du yoon du dëgg moo tooñ ñoo pare ñu la seede nga am ci xam-xam ba pare nga dëggal ko saa sa wax na ko ci benn xadis mu ne alaaw qawla zuur alaaw shahadatu zuur saxaaba bu ne fama zala yukarriruhaa hatta qulna laytahu sakata maanaam lu garaaw la waxtu woo seedee loo xam ne du dëgg da nga maam lool nga ay bani aadama yu bare bare bare bare bare kenn xamul ñaata nga yàqal bon loolu nit ki ko war a lan da ko war a moytu bon nit ki na wax dëgg wa bi ahdillaahi awfu li nga xam ne moo dox suñu diggante yàlla da ngay dégg léegi waaye sama diggante ak yàlla mooy nga jaamu amul leneen lu dox suñu diggante ak moom lu ma ñu lan ñu jaamu ko ñu ñooy kay imma imam wax ñu dégg mu ne iyyaka na'budu wa na nasta'in ñu noppi arabu na sukutu iqra imam bi lu mu wax yàlla subhanahu wa taala ñun ñëpp la engagé man mi nag man da man d'accord naa ci yàlla yow kese kese kese kese kese naabudu nga noppi mooy ne yàlla wax la dëgg man tam ci da àgg yàlla yow kese kese kese kese la ñuy dimbali ko nga noppi mooy ne yàlla imaam lu wax àddinaa ci wala yokk sa bopp nga waxal ko sa bopp bon mbokk yi ñaari iyaaka yi nañ ci bàyyi xel lii moo dox suñu diggante ak borom bi subhanahu wa taala nit ñoo ko wax muy engagement boo xam ne subhanahu wa taala mën nañ ko respecté nañ ko lan nañ ko respecté waaye nag damay damay damay daf may jaaxal waa joo xam day nekk ci jàkka ji léegi-léegi mu nekk imaam man jul naa si ci benn waay id euh, parcelle ba mu wax iyaaka na abudu wa iyaaka na sain tànk bi ba ma ko xoolee ma ngi fa takk euh, euh, ay pas ay pas pas bi bu bu ñuul ak bu bu xonq ak bu bu weex ñu ngi ci ëf fas wax li am waaye doo xam ne ba muy wax iyaaka naa abudu wa iyaaka na sain ay ndigg ndigg li mu ci takk ci ay ndomb kenn xamu nu mu fii yëpp mu ko takk loolu mënu nekk subhaana taala ba nga wax iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yaa xayti dafay fekk amul lenn lu ñuy takk nga takku sa yaram lenn da ngay sa bopp yàlla subhaana taala yàlla mu ne alaysa yàlla dafa la doyut ci lépp ana rek wax ma ne fan ngay soxla yàlla subhaana taala te yàlla doyut fa doy ba la wa bi awfi wa bi ahdillaahi zalikum wasaakum bihi léegi tamit leen subhaana taala lan digal moom la leen dënk laallakum tadakkaruun ngi lan fu ngeen toll di fàttaliku borom bi subhaana taala ngeen xam-xam ñu ñaar yàlla subhaana taala moom bi nga xam ne moom moo ñu baaxee ñu toll fii ci weeru koor wi yàlla ñu yàlla nangul li ci weesu rëq-rëq yi ci am yàlla ñu yàlla boole jéggal li des ci weeru koor yàlla ñu yàlla may ñu mottali ko mu may ñu fekk ay weeru koor yu bare bare bare bëri wa ma dalika àllah aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa anna hada sirati mustaqiman fattabiu subhana taala mu ne ba mu commencé taala atuma harrama aleykum rabbukum ba fii siraat yi lii de mooy sama yoon boo xam ne mustaqima bu jub xocc la fattabiuhu toppale ko daf leen li subhana taala wax wala tattabiu subula bu topp ñal yi fa tafarraqa bikum an sabilihi mu daal leen teqale ak yoon yàlla subhanahu wa taala dhalikum wasaakum bihi laallakum tattaquun loolu leen subhanahu digal moom la leen dénk bu ko defee ngeen ragal yàlla subhanahu wa taala wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh